li ci yenn yi ci yenn yi El élage Seydou leen a jàmm ci xibaar yéenekaay wa inna ilayhi raji'un ca yàlla la ñu jógee bi du xamal ne moom kay démb nga faatu fi nga xam ne nag moo di Bordeaux waaw bi amee juróom-ñetti fukki at ak benn yéenekaay bi du xamal ne moom Serigne Cheikh Béthio Thioune gannaaw feebar gu metti goo xam ne daal moom moo tëddaloon ki nga xam ne moo di njiitu cantaakun yi te nekkoon fi nga xam ne nag moo di Bordeaux doon faju yéenikaay da doon di xamal ne maître Ousmane Seye mi nga xam ne gannaaw daal kàddu yi nga xam ne daal moom mujjee jël nañ ko ca tribunal bu Mbour waaw Medinatu Salaam mu ñi nga xam ne daal mooy xewoon foofee jamono ji yéenekaay nga xam ne daal moom la wax Serigne Saliou Thioune waaw direct info duñu xamal ne Cheikh Béthio Thioune kay noppalu na wuy ji na ci weeru koor gi waaw ci bis bu njëkk ci weeru koor moom Serigne Cheikh Béthio Thioune ca la génnee àdduna mo vox populi di ñu xamal kay moom sëriñ bi kay jamono ji ñi nga xam ne kay ñoo di cantaaku a a gu mujj ba wuy ji boromam bi yéen kaay yi xamale kay kàddu yi nga xam ne daal moom la sëriñ Saliou Thioune yëkkati daal di jëm jëmale ci waajurum woowee yéenekaay bi di Sud Quotidien daal di dikkaat lépp loo xam ne nag a moo di askanu Sénégal yéenekaay bi dañu xamale ne moom daal bu fi jógee nañu ko denc fi nga xam ne nag moo di Medinatu Salaam Les Échos yéenekaay yi dañoo xamal ne kay gannaaw bi nga xam ne nag génnoon àdduna moom Serigne Cheikh

seen mbir moom mooy dafa teel ci moom te bu ma tuul mën na ci jëlee lu ko bett. El Hadji Ousseynou